xam nga nag gars yi dañ leen di tooñ sax ay defu leen appel d'offre man loolu duma leen ci tooñ d'accord ma ci j'ai vu et passage qui m'a qui m'a un peu qui m'a un peu marqué j'ai bokkoon na ci combat bi mm-hmm. et dans ce livre la ci préface bi wala ci remerciement yi voilà ngay revenir nga ne dans le contexte particulier de l'ouvrage je dédicace le travail de Sonko aux jeunes martyrs et ceux de l'espérance dans les mers et déserts de l'immigration aux exilés et détenus qui croupissent dans les prisons du Sénégal en ce moment pour des motifs incompréhensibles à Pastef les patriotes et ses sympathisants qui bravent présentement les pires injustices jamais vécues au Sénégal sous le silence complice d'une partie des voix autorisées, ainsi qu'à toutes les victimes de systèmes uniques dans le monde. Je pense entre autres à Imam Alun Badara Ndao, Bassirou Diomaye Faye, Fadilou Keïta. Bassirou était en détention encore. Fadilou Keïta, Mortala Gueye, Amidia, Abdou Karim Gueye, Cheikh Omar Diagne, Fatou Fall, Matissa Niang, Modou Ndiaye, Pape Abdoulaye Touré, Cheikh Até Jim Fatima Mbengue Seydina Omar Touré il n'est pas en détention Guy Marius Sagna euh, Dame euh, je peux pas comprendre yow nga ñëw nga gëm un idéal mënoon a dem comme ni ko yenn cadre yi dafee dem militer APR am ay dividende wala sax nekkoon ministre l'économie solidaire nga ñëw gëm un idéal xeex ba ba idéal boobu vaincre euh, ñu ne la ah après la taxawee leen na le gars yi dañ leen di tooñ ci loolu vraiment dañ leen et puis dañ leen di charrier nii rek xam nañ ne loolu mu politiquement mënul nekk mais dañ leen bëgg renvoyé renvoyer votre copie parce que da ngeen doon verser trop ci populisme naan waaw bu ñu ñëwee dañuy def appel à te xam ngeen ne xëy na nag da ngeen xamul woon waaye loolu mënta mënta mënta nekk ñoo gën a xam ah xamoon ngeen ñoo gën a xam ah. eh, eh, te eh, may mun a xam nga en fait appel à candidature boobu weesuwul xam nga ñun bi ñuy wax waxuñu la ne. weesuwul euh, texte yi li mu wax mooy c'est le président qui nomme. waaw yaa ngi dégg. léegi nomination boobu ak li nga xam ne yépp moom moo aju ci ban euh, modalité la ñuy defee euh, kii bi appel kii comment dirais appel à candidature bi. loolu amagul c'est-à-dire on n'a pas un cadre référentiel bu ñuy permettre ñu def ko pour l'instant amaguñ ko may mun a mënuñoo tam def ko nii buñ tëboon tey def ko nii waaw mais dafa am société yu spécifique yoo xam ne da ngeen ko joxe société yooyu dañoo am des conseils d'administration waaw mënoon ngeen def une gestion provisoire par le conseil d'administration et puis conseil d'administration bi organiser l'appel à candidature euh, Sénélec dafa am conseil d'administration port APIX euh, euh, xaaral euh, rek RTS ah ngeen tijji ay soumission euh, bu fekkee ne vous ne vouliez plus des gens de la l'APR et de Benno Bokk Yaakaar ngeen def des des de des des gestions euh, provisoires le temps de faire c'est-à-dire foofu noonu da ngeen di nangu xam nga xam nga. non loolu laa d'accord non d'accord nga may mun a. xam nga da ngeen di nangu ne da jàpp ne boo leen gañee da ngeen a gouverner. te gis nga nag Aline loolu mooy dëgg. non man man gisewu noonu man man li ma gëm man li ma gëm mooy compétence yi parce que nag critère boobu ku gëmul projet doo ko doxal. si on est d'accord ci la ci loolu moom kooku moom duñ la jël projet bi su fekkee ne yow leer na ne gëmoo ko waroo ko défendre maanaam doo dem ci plateau yi par exemple man je peux pas être un directeur war a défendre la projet may dem télé di ko attaquer naan projet amul may mun a la problème xam nga lan la képp koo xam ne tu as les compétences dañ laa war a jël mais. présentement non waxu leen woon loolu da ngeen waxoon ne da ngeen di soumettre. poste yëpp mais non. politiquement c'est irréalisable et c'est injuste c'est injuste pour ces gens-là. non euh, yow yaa jàpp ne c'est irréalisable et non c'est injuste mais mais attendez Maïmouna xam nga lu ma la bëgg a wax. c'est-à-dire est-ce xam nga ne jusqu'à présent am na poste yoo xam ne tey l'expérience et l'intelligence tey nga tëb génne ko. vous avez fait dégager vous avez fait passer par exemple des hommes d'expérience compétents xoolal sans sourciller indi fa ñoo xam ne sax du seen domaine de compétence donc ah, loolu critère mais si man de gisaguma ko man daal gisaguma ko non. yow yow am na ay raison mais bu attends compétent homme compétent boobu. bu fekkee ne tey leer na ne gëmul projet bi. gëmu ko c'est-à-dire cette approche là li ci nekk gëmu ko. Hmm. mais kooku doo ko fa bàyyi même si les compétents moo tax ma ne bokk na ci critères yi d'abord donc ñi nga xam ne dañoo ànd xeex ñooñu moom ku ci am compétence tey nga jox ko mooy l'idéal. vous avez gagné xam nga man sax man en fait loolu sax c'est en passant vous avez gagné gouverner avec vos hommes et assumer ça on passe à autre chose. non non xam nga ñu bëgg a gëmloo ne ñun populisme lañ def <laughs> non yow xam nga may mun a danga dangereuse man xamoon naa loolu danga dangereuse parce que gis nga ni nga ko jaare nii c'est-à-dire tu danga ma bëgg a avaler loolu loolu mais dama la ne appel à candidature bi cadre bi moo réglé gul te y a des urgences yoo xam ne mënaguñoo tëb tey présentement. mais mais mais Aline tey ñenn ñi wala ñu jël ñenn yi dugal leen. Aline yow déglu loo ma de parce que c'est loo ma de dama ne. ba ngeen koy wax xëy na xamu leen woon réalité pouvoir ba ngeen koy wax tamit da ngeen bëggoon apporter cadre yi ci ci structure même structure yoo xam ne ci régime Macky Sall la. tous les cadres étaient contents gars yi ñibbisi. ne wéy bu ñu gañee ça va se passer comme sa vous êtes élu defu leen ko da ngeen di taxaw sénégalais ngeen ne leen écoutez da nga naan defaguñu ko légal bi ñu demee ba ci biir am na boo xam ne pat Pastef commencé woon na euh, impatienté wu euh, Pastef parti bee na a toj boo leen defoon loolu da ngeen naan les gars. écoutez réalité pouvoir réalité opposition de réalité pouvoir on a gagné on gouverne avec nos hommes mais y a pas mal. mais Maïmouna est-ce xam nga ne yow li ngay wax nii bu xoolal ma wax la ko de manière beaucoup plus simple. waaw. est-ce que xam nga ne tey même appel ak candidature bi du tey ki nga fa bëgg a teg nga koy teg nga fay teg. boo leen ko jaaralee ci yoon. même bu jaaree yoon xam na lu tax. parce que appel bi lan la tu vas prendre ou cinq personnes même si c'est trois. les meilleurs CV. les pas de Pastef. ils peuvent être de Pastef mais ils peuvent ne pas être de Pastef. la plupart seront de Pastef parce que nag gars dañoo bëri cadre nag. ah pour nga laal domaine bu ñu bëriwul ay cadre am ah mais mais mais parce que ñu toogoon tey Ousmane Sonko nekkoon président mu ne euh, pour. yeneen sénégalais bàyyi ñoom Bassirou Diomaye ak ñoom El Malick ak ñoom Fadilou ma gis ñu daan daj lim leen jaral ñoom jaral na leen sax ñu noo parti Pastef jaral na leen ñu noonoo yow mais dama naan dama koy dénoncer mais mais may a a may a xam nga lii xam nga ñun certains certains postes la ñuy wax du yëpp benn xam nga poste ministre doo def appel à candidature te bu ñu fàtte ne service public dafa am ñaar yëf. Hmm. dafa am le pouvoir discrétionnaire discrétionnaire. Hmm. tey mënoo def appel à candidature ba exclure complètement le pouvoir discrétionnaire qui est en fait une caractéristique du service public. mais mënoon ngeen ko habillé rek. appel à candidature waxu leen fa waxu pouvoir dissuasif da ngeen ne. non mais yooyu dañ koy tuumaal les sénégalais vont compétir à à égale. waaw à égale va choisir les meilleurs sénégalais. voilà les meilleurs. pouvoir discrétionnaire waaw mais les meilleurs yooyu nag bu ñuy wax les meilleurs ba bu ñuy jox bul fàtte ne ba booy soumettre autorité biy jël décision doo ko jox benn doo ko jox ñaar. di